Mamadou Ndoye ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay nuyu soxna si. ngay coordonnateur collectif euh, pour l'extension du village de Ngor collectif mhm. le euh, tey mu daal di ëmb euh, ñett village Ngor Wakaam ak Yoff tey ngeen bëgg jot ci seeni suuf balaa ñoo wax ci mbir moomu la ñu bëggoon a xam nga xameel ñoo collectif bi kan ak kan la. waaw en fait maa ngi lay gërëm soxna si collectif bi nag. ñetti collectif yu wute la. Hmm. parce que li ma bëggoon a fàttali rek mooy Ngor am amoon collectif Yoff amoon collectif Wakaam am collectif. Hmm. ñoom ñett ñëpp nag ñoo bokkoon benn xeex bu ñuy xeex muy pour jéem a fexe état du Sénégal jox ñetti dëkk yi une zone d'extension ci aéroport bi. Hmm. bi ñu gisee loolu nag fi ñu ne lii gën mooy ñu boole suñuy doole doon benn pour que xeex bi gën a yomb. ci la ñu nag collectif bi tuddee ko collectif euh, des trois villages de Ngor Yoff et Wakam bu tuddee ko Tànk. Mhm. Tànk moom mooy lan ci ci bo bon su suñuy maam. ni ñu doon waxee tànk mooy fii tànk yem. ñëpp xam nañ ne fii Ngor mooy soow jant. Mhm. Ngor Wakam ak Yoff boo xoolee si ni nga xamante ne ni mu ni mu bindoo. Mhm. dafa jël forme tànk forme tànk la jël. Euh, moo tax bokk na si tax ñun ñu jël tur boobu tuddee ko tànk mhm. waaye am na peut-être yeneen signification yoo xamante ne man ump na ma mhm. ba tax na suñuy maamu tuddee woon tànk mais xam naa ne daal euh, forme Ngor wakam Yoof boo ko xoolee si carte bi forme tànk la peut-être du am si base nag peut-être lu waral ñu tuddee woon ko tànk boo xam ne ko mën a du mën a expliqué fii. d'accord euh, monsieur Ndoye tey ñu dégg ne seen suuf ngeen soxla euh, ñu bëggoon a xam tamit origine nan la demee tey ba ngeen jàpp ne seen suuf la. en suuf si c'est clair xam nga Ngor ak Woof ak Wakaam. Mhm. ñoo seq aéroport bi. Mhm. si jamono suñuy maam bi ñuy dëkk fi lu dundew lu dul bay ak géej. Mhm. bu ñu béyee ba pare dañuy dem géej wala suñu gémee géej ba pare ñu dem bay mhm. ñoom nag seeni tool ñoo moo nekkoon fii si aéroport bi dañ fa doon bay njàmmi di fa bay soble di fa bay lu ne mhm. si loolu nag en mille neuf cent quarante jamono guerre bi amee mhm. américains yi soxla woon boo xamante ne bu ñu jógee États-Unis dañ mën am foo xamante ne base na bu ñu mën a euh, noppaliku après jóge fa door a euh, fële Europe. Mhm. xam nga jamono jooju mënuñu woon directement jóge états dem Europe. base boobu base boobu lañ soxla woon te Afrique rek lañ ko mënoon am te si biir Afrique tànn ñu woon fenn fu dul Sénégal. Mhm. tànn Dakar te site bii gënoon mooy fii nga xamante ne nii mooy euh, site bii am aé aéroport bi. Mhm. bi ñu ñëwee ñu fekk fu ñu maam doon bay ñu waxtaan ak ñoom ku ne xam na ne lébu républicain la. d' la république euh, bi nga xamante ne moo njëkk am avant la création de la république sénégalaise. Mhm. mooy la république lébu. Mhm. parce que lébu amul buur boo ko xoolee si histoire. Mhm. si loolu la ñu euh, waxtaan ak sunuy maam ñi fi amoon ay tool yëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu def li ñuy wax expropriation. li ñu fa defoon comme jiw lañ leen doon maanaam euh, fay. waaye tool yi ba léegi kenn fayu leen ko parce que sunuy maam lañu ñu bañoon du ñu jaay. léegi bi loolu amee nag ñuy dem di dem di dem di dem ba américains yi jóge fi français yi ñëw fi. Mm-hmm. français yi yor administration ñuy dem ba français yi jóge fi état du Sénégal ñëw. mu mm-hmm. continuer ba ñu def aéroport bi aéroport international Dakar Yoff. Mm-hmm. ñuy dem di dem di dem di dem di dem ba Ablaye Wade ñëw jël décision na day jël aéroport bi transféré ko yóbbu ko fële si Diass. ñun nag si lañ commencé di organiser wu. aéroport bu buñ koy transféré ñun nañu delloo suñuy suuf parce que suñuy maam ñoo ko moom. Mhm. parce que am nañ ay kayit yu ko yu koy prouver. d'accord Ablaye Wade sax te négociation ak moom demoon nañ ba sore ak moom parce que dëkk bu su nekk pare woon na pour jox ko trente hectares. Hmm. ñuy dem nag ba Macky Sall gis Macky Sall da war a campagne. Mhm. gis na fii lébu yi ñu ngi dund li nga injustice la. jamono ja muy doon candidat. jamono ja muy doon candidat. Mhm. mu ñëw fii sa wakam ne lébu yi li ngeen di dund injustice la bu ñu yàlla may dénkee nguur gi dinañ ko régler lu mu a gaawee. Mhm. ñun ñu ànd ak moom si loolu ba yàlla fal ko président. dëgg la waaye de gis ne falu na euh, ba jeexal premier mandat dugg si deuxième mandat di ko waaj a jeexal. suñu problème ba léegi mënul réglé wu. balaa ñoo wax monsieur Ndoye ci seen waxtaan ak njiitu réew mi fi nekk euh, tey ndax jot ngeen am dara wala amu leen dara ci seen i waxtaan euh, tey nee nga mbir mi jamonoy wàdd la door donc du tey yàgg na. Euh, lu mm-hmm. waral yéen tey. yàgg ngeen ko xeex dëgg la. Mm-hmm. mais dégg gi ñu leen dégg dernièrement dafa dafa dafa bëri. lan moo waral ñu ñu dégg leen ci ay coow. xam nga dañu ko sekk ak nguur goo xamante daf si am ñoo xamante ne dañu xaw a saay-saay baal ma si kàddu bi. ok parce que ñun dañu ne xeex bi buñ koy xeex duñu si dem ak violence duñu si wax wax joo xamante ne nii wax ju ñagas la. parce que moo waraloon seen tekk tekk tekk. moo waraloon dégguñu si leen. d'accord parce que bi ñuy tàmbali mbir mi dañu si dem ak suñu kilifa. Mhm. kilifa diine kilifa aada. Mhm. ñu wax ñu defee leen ni waxee leen nii. si loolu. si la ñu waxtaane euh, commencé waxtaan ak nguur gi. Mm-hmm. ba jamono sax boo xoolee ku ne xam ne ne lébu dafa tàng lébu dafa xaw a naxari deret tuuti. Mm-hmm. yàlla dogal na nag organiser nañ fi ay manifestation waaye manifestation yi ñu ciy organiser yëpp amul benn violence. Mm-hmm. def nañ ay point de presse ak yooyu yëpp. te loolu la état du Sénégal am nekk si nguur gi nee na ni commencé ñu waxtaan. li waxtaan yëpp. waxtaan wi wax dëgg yàlla amoon na avancement amoon nañ ci yaakaar. Mm-hmm. parce que demoon nañ ba état bi euh, dikk ñu euh, cent soixante quinze hectares si biir aéroport bi. d'accord donc nag mënuñu jàpp ne yow yaa ngi nax waxtaan ak buur ba pare si gannaaw ngay nekk di wax. wala di def naka dul noonu. lan ngeen ci dégg. lu tey seen xel maanaam ñu woon di négocier nekk di négocier ak état ba pare. Mm-hmm. nekk si gannaaw jotaguñu li ñu war a jot ñu ne dañuy xeex wala di di wax ci presse bi. wala di ah, wala di def na d'accord d'accord loolu moo tax ñu nekkoon ci tekk tekk ak mm-hmm. tekkaaral. Mm-hmm, mm-hmm, waaye malheureusement euh, lii ñu ñu diggoon. ba léegi gisuñu ko. waaye nag ñu am leneen lu ñu gën a metti ci toog ñu ñuy dégg le directeur des domaines di wax naan Ngor ak Yoff ak Wakam amuñu dara ci aéroport bi seen i maam dañu jaayoon suuf si. loolu nag maa ngi fàttali ne nga xamante ne moo ko wax. li mu wax noonu de xam naa moom maamam li mu jógee fële sa Kolda la moo tax xamu ko waaye ñun suñuy mam yi nga xamante ne ñoo tàmmoon dëkk fii xam nañ bu baax ne fii ndax ñun ñoo ko wala moomuñu ko te jusqu'à l'extinction du soleil mënuñu génneel benn kayit buy wane ne aéroport bi suñu maam dañu ko jaay. te yow jàpp ngeen ne wala yéen jàpp ngeen ne kàddu yooyu ngeen dégg dafa waroo ak li ñu jàpp ne mooy négociation yi am ci diggante yéen ak nguur gi. non seulement dafa waroo waaye dafa nekk kàddu yu ñu bett ah, te moom bi ñu jàkkaarloo ak ñoom waxuñu ñu jàkkaarloo ak moom moomu waxuñu kàddu yi. Mhm. kàddu yi mu wax nii waxu woon. Mhm. donc vraiment nekk na kàddu yoo xamante ne kàddu yu ñu bett la. Mhm. kaddu yu ñu bett la te nekk na kaddu yu ñuy naqarlu. nga wax lu am solo sànq nga ne am na ay suuf yi nga xam ne euh, daal nañ leen ko digg mais ba tey kenn joxagu leen ko mu mel ni euh, yéen Macky Sall mi doonoon candidat ñëw gis leen euh, waxtaan ak yéen si seen i jafe-jafe tey ba mu toogee andiwul dara ci wàllum solution ci coow li. boo buggee dégg-dégg Macky daf ñoo wor dafa wor Lebu yi dafa wor Ngor war Yoof war Wakaam. Mm-hmm. parce que boo gisee ñu jàppale woon ko en 2012 lii bokk na si li tax amoon yaakaar si kàddoom amoon yaakaar que ne vraiment bu faloo dinañu régler suñu problème. Mm-hmm. lii waa Ngor ak waa Yoff ak waa Wakaam di dund metti na si xol damay ñaan presse national ak internationale yu ñëw dugg si ñetti dëkk yi rek xool ni nga xamante ne moom la ñuy dundee. Mm-hmm. metti na ba kanamu yàlla cinq cent mille habitants au kilomètre carré ngay gis nit ñi di ko dundee ñuy tabax di jëm kaw rek loolu mu nekk une bombe démographique bu doy waar mm-hmm. amuñu beneen pexe budul ñu jox ñu ci aéroport bi pour que ñu mën a servir une zone boo xamante ne ñii population yi dinañ fa mën a yokku mm-hmm. mais ñu continuer di ñu xatal di ñu xatal di ñu bundu xatal ba tey jii nii géej gi mu ngi avancé di dugg ci biir kër yi ñu demee bay dund lii nag kenn nettaguñu ko ku dul président Macky Sall ak nguuram. Eh, tey jii ndax jëluloon dogal eh, daal di bloqué eh, bépp jaay terrain ki nga xam ne moo ngi am ci côté googu. ah kay amoon na. Hmm. amoon na à un moment donné bii. amoon na mooy léegi bàyyi nañ ko hmm. waaw amoon na ay manifestation yu ñu defoon toujours c'est des manifestations pacifiques. Hmm. dugg si biir aéroport bi jéem a euh, yëglu si lañu ñu ñoom ñu jëlee dogal dañuy arrêté lépp loo xamante ne nii dafa jëm si wàllu joxe foofu ay attribution ak ainsi de waaye ñun jàpp nañ ne loolu xeetu nax la woon rek pour que ñu calmé wu après ñu mën a continuer li nga xamante ne moom la ñuy def parce que ñu ngi continuer di joxe ci aéroport bi te boo fa duggee sa xol jeex ñoom ñu ngi continuer di tabax te xam nañ ñoo xamante ne ñu si bëri si biir nguur gi. si mhm. biir nguur gi man mën naa leen génneel ay tur yu bëri. kon nii am ngeen liste nii. am nañ liste ñu bëri si famille présidentielle bi ci ñi nga xamante ne nii dañu bokk si parti APR si ñi nga xamante ne jiite ay institution si nguur gi ñoo xamante ne ay sëriñ lañ ay marabu ñoo xamante ne euh, ay simple sénégalais lañ au détriment di ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ñoo fa dëkk te loolu wax dëgg yàlla amul fenn si addina amul fenn. tey euh, lan moo doon seen plan d'action sànq yaa ngi koy wax ci nasaraan am na li nga xam ne yéen jamono ji yéen a ngi ciy waxtaan fas yéene ko def. ñu li ñu jàpp mooy ne bii bu fekkente ne ay armeer la ñun lañ fay suul ñun waa Ngor Yoff ak Wakaam bu fekkente ne ay dëkkuwaay la ñun ñoo ko war a dëkkoo waxuñu ne duñ jox yeneen sénégalais buñ jox yeneen sénégalais mhm. ñun tamit on ne peut pas demander loo xamante ne mënul nekk li ñu dem yeneen sénégalais yi nañu yëkkati au moins quelques hectares jox ko ñetti dëkk yi comme ça ñu mën servir ñu mën parce que ñi ñu yaakaar ne dañuy jox ay suuf nañu jël jaay jaayuñu ñun ñu ngi dund loo xamante ne lu metti la ñu xalaat suñuy doom di xalaat suñuy sët. Mm-hmm. li ñu soxla mooy état du Sénégal jox ñu des zones d'extension yu mën a dëkk. c'est tout ce demande demande laaju laajuñu leneen. d'accord buñ ñu wax ay waxu ne dañuy jaay wala leneen ak leneen parce que tollootuñu foofu. Euh, donc di ngeen yëglu. di ngeen amalaat ay marche wala. lépp loo xamante ne nii yoon permettre nañ ko pour ñu mën a jot suuf soosu dinañ ko def. nga xamante ne ñoo fa dëkk bu ñu yaakaaree ne ñoom dinañ nekk si jàmm ñun ñu nekk si naxar ñu ngi naxar ñu ngi nax seen bopp ñoom mënuñu nekk si jàmm ñun ñu nekk si naxar mënul nekk ñi fay dëkk bu ñuy yaakaar ne mukk dinañ nekk si jàmm loolu moom ma wax leen ko te ñu te nañ ko dégg bu baax a baax a baax ñun lépp loo xamante ne yoon permettre ñu ko. dinañ ko def pour que ñu mën a am foofu une zone d'extension. Hmm, bu laajee ñu dem foofu def fa ay manifestation dinañ ko def. bu laajee ñu dem foofu organiser wu def fa ay grève de la faim dinañ ko def. ndaxte président Macky Sall dama koy fàttaliwaat. Hmm. en 2017 demoon na voyage ànd ak ay personnalités notamment ki nga xamante ne mooy le porte-parole de la famille Layène. Hmm. muy Mamadou Lamine Laye bi ñu demee fële sa Màkk. jour boobu la ko Mamadou Lamine yëkkati mémorandum bi nga xamante ni lébu yi dañ ko def mu teg ko si loxoom mu nekk lébu yi ñu ngi jooy seeni suuf si aéroport bi président ne ko problème bi dinaa ko régler nu mu gën a gaawee waaye ba tey jii day Mamadou Lamine nee na déggaatul président mu waxaat ko si mbir bi. donc ñun la ñuy jàpp ne président faalewul askanu Ngor ak Yoff ak Wakaam defalu leen dara. te ma fàttali ne am na sunuy doom yoo xamante ne ñu ngi si biir nguur gi liggéey ak gouvernement bi waaye ñooñu de jàpp naa ne ñoo gën a gis sax ñi nga xamante ne mooy euh, nguur ak Macky Sall gi. <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Ndoye Mamadou Ndoye. jërëjëf.